élection yaa ngi ñëw bàyyi leen xel li ma leen di wax boo gisee ñu arrêté làmb ji du dara bëgg nañ ñoo xiifal mbir yi bu jub see ñu jëbbal ñu ay ngooñ jël ñu ay sécurité ñuy dóor nit ñi bàyyi leen xel loolu bind leen man may wax ak yéen parce que nit ki boo mënta càmbar di utiliser sa xel rek nekkatoo nit. bëgg nañ ñoo appauvrir ñun mbëru làmb yi parce que ni ñu annulé làmb ji amul yéen ñii ñëpp fu ngeen ko mën a teg kenn mënu ko analyser surtout façon bi ñu ko defee. il veut nous appauvrir après ñu jox ñu ay ngooñ pour ñu ànd wàcc ak ñoom ci kaw bu ñu bëggee eh, teg injuste askan bi ñu wàcc ak ñoom ci kaw ci ànd ak ñoom di dóor askan bi te loolu du am. association des jeunes lutteurs du ñu ànd ak benn autorité ci injustice autorité bu yaakaar ni di ñu xañ suñuy droit après nga xëcc ñu sa wet jox ñu ngooñ parce que xiifal nga ñu pour ñu ànd ak yow ci injustice duñ ko nangu xam na moo tax ñu gëm loolu. parce que ministre de la justice bu mu invité ñoom Gris Bordeaux seen soi boobu. te Gris Bordeaux moo génn taxaw ne ministre bi dañ koy porter plainte kenn wax loo wu ko ko moom moo ne ministre bi dañ koy porter plainte. ñëpp ne audience la bëgg ñun sax dañoo ruus parce que ñun ay mbër lañ bu ñu sañoon duñu bu ñu wax ni xam nga société bi lan lañ ñuy wax mbër yi ay nitu intérêt lañ mais nañ ko xeex ñun ñun du ñu ay nitu intérêt ñun lu ñu am askan bi moo ñu ko jox mais nag dëgg su fekkee benn fen day toxal day fukki fen benn dëgg benn benn fen day yàq fukki fen fukki dëgg tey benn benn fen bu fekkee fukki dëgg day doxal fukki yëpp tey juróomi nit il sont corrompus peut-être ñoo nekk ci kaw ñun ñëpp ñoo ñoo yor suñu destin. tey mbër yi mag yëpp ñoo yor suñu destin seen comportement lañ ñuy jugé moo tax ñu naan mbër yi ay nitu intérêt lañ parce que askan wi musul taxaw ba mbër yi taxaw wax loo xamante ni askan wi dinañ ci gis seen bopp lu dul ànd ak ñi nga xam ne ñoo autorité yi. ministre bi lan la wax nee na ñoom dañ maa demandé cinq points Gris Bordeaux feneluñ ko. moom ministre bi la war a porter plainte bu dee tëj day am ñoom ñoo tëjoog ci biir ministre Malick Sall ministère de la justice moo taxaw fen maanaam sox du ma wax moo fen mensonge international la defal. parce que olof dafa diis soo nee fen dañu naan da ko saaga mais mensonge international mooy dafa dem ba génn bitim réew teg ay tuuma ci suñu lor loolu diffamation lañ koy tuddee ay intoxication la joxe ñun du ñu ay dof kon ñun tey jii dañoo waroon dédommager ci wax ju ñaaw jooju. parce que tey teggi tuuma maanaam fa yow a egg du man eggu fa bu doon ci réew mi la ñu bu boobaa dina neex a dindi waaye daf ñoo waxal bitim réew kii tey mën naa dem suba bëgg amba bëgg dem ambassade bëgg visa ndax ñu yombee am na ñu bëri daf leen a naqari ci société bi visa ni mu ñu yombee bëri daf leen naqari ci société bi ñun ni ñu yàlla def am na ñu bëri ñoo ne leen naqari ndax Balla Gaye avant 2005 kenn xamu ko tey il s'est il s'est parti de rien du tout pour accéder à un certain niveau social tey ji Balla Gaye bu muy lu mu am teraanga bi muy am teraanga boobu mi Matar Ba nekkul ministre kon lan moo tax Matar Ba war koo mën a jënd lan moo tax nga am ngay fay ko 80 millions ñu jox la 2 millions jënd sa baat ba bu société bi sa doomu mbër yi société bi sax bu ñu soxlaa dara yow doo mën a taxaw ngay porteur de voix nga waxal sax waa géejawaay mais loolu du am lu dul nag autorité bi nga xam ne moo noot askan bi suy ñëw géejawaay yow lay jox 80 millions wala 50 millions ne la kaa ñu ànd après askan bi ban bët la ñuy xoolee dañ naan ñun suñuy intérêt rek bu ëllëgee gisoo tey lii xew ci làmb dem leen ci commentaire ye ñoo ñaw lañ ñuy pour pourquoi ñun ñu wëlbatiku ba suñu société du wan ginnaaw lan moo ñu ko war a jaral nañu dem ci ginnaaw askan wi ndax askan wi moo ñu def lu ñu doon askan wi suñu amee combat ñoom ñooy daw ñooy sonn xale yooyu topp suñu ginnaaw ay sans emploi lañ xale yu topp si ginnaaw mbër yi ñu ci ëpp amuñu xëy état joxu leen liggéey ils se ils se battent de corps et âme pour dundal seen i wayjur kon tey xale yooyu tey mbër yu ndaw mbër yi egg ci kaw war nañ leen mën a waxal au moins war nañu mën a wax pour xale yooyu topp seen ginnaaw kon tey ci tàngul ginnaaw ga moo lakk ministre bi su génnee ne juróomi poñ lañ ma laaj te ñoom nee nañ ministre moo leen woo di leen baalu man ministre bi fuuta la ko waxee benn autorité bu mag moo ma envoyé vidéo man ci làmb pour confirmer li ma doon wax. Fouta la ko waxee mu ne juróomi poñ la ma la ma cinq major cinq major la leen tuddee mooy mbëri fa ñëwoon il moo demandé cinq points benn bi mooy ma nekk seen parrain beneen bi mooy ma yóbbu leen ci Macky sàll beneen bi mooy ma ma ma bu ñu amee campagne ma bàyyi leen ñoom ñu accompagner ñu ah, am na beneen point muy juróomi point yoo xam ne tënk na ko ne ñoom moom lañ ko demandé mais ñun waxuñ ñu loolu ñu yëkkati fukki millions jox leen ko. kon ñun fenaluñu kenn vidéo bi tey ku mu bëgg mën nga dem si internet bi nga gis ministre bi wax loolu kon tey dañoo demoon ne dañuy jéggalu ministre bi ger leen ci fukki million te ñoom ñooñu ñëpp ku ci nekk am nga ay quatre-vingts million yoo xam ne ko nga ko ba tàyyi fukki million tax ñu man waxuma seen xas mais dañ ñoo xasaale ñun ñëpp ndax bu benn mbër fotee dañ naan mbër yëpp ñoo fote kon tey suñu ñëwee injustice ba tey di ñëw mooy lan dañ ñoo bëgg apo appauvrir wax naa ko léegi dañ ñoo bëgg a pour après ñu daal di ñuy utiliser waaye nag man de injustice lay xeex mbër yi toog fii nii képp ku ci pare pour nekk nervi wala nekk koo xam ne dañ lay utiliser ngay lor sab askan man ànduma ak yow. te duma mës a ànd ak yow te doo ci am ndam te doo ci mës am ndam ndax sama ndey sama baay ci askan wi la bokk ñun waruñu benn intérêt personnel waruñoo tax ñu lor suñuy ndey ak suñuy baay ak suñuy njaboot kon encore une fois. encore une fois mbër yi duñu ay dof mbër yi duñu ay dof il faut que ngeen respecter société bi nañ ñu respecter ñu nit ñu respecter suñu bopp